asalaamaaleykum mbokk déglukat yi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom fa am na lu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission bii di yoonu njub ci sunu njàng mi weesu ci mbindi yonent yi nu ngi doon gëstu ci bérébu mbugal gudul dàkk gi di safara safara mooy bërëbu metit bi ñu sàkkal seytaane ak ay malaakaam mooy fa képp ku sàggane yoonu mucc bi yàlla tëral wara tàbbi tàggook yàlla ba faw moom la mbind mi wax naan képp ku ñu bindul sa tur ci téereb dund bi des na la sànni ci déggu safara ak tamarax bi te saxaar si jolle ci seeni mbugal dina gilli ba faaw duñu noppale guddeeg bëccëg ci lu wóor safara mooy mbir mi gën a metti ci lépp lu nit mën a xalaat wante tey ji danu fas yéene gëstu ci mbir mu gën a neex ci li xelum nit mën a xalaat ndaxte bëgg nanu jàng ci mbirum àjjana di bërëb bu fees ak ndam li yàlla dencal ñi ko bëgg dëgg-dëgg ci lu wóor nit ñi am nañu ay xalaat yu bare te wuute ci lu jëm ci bërëbu àjjana ak ni nit di war a def ngir tàbbi ca ci misaal ñi bokk ci diiney penku yi dañu gëm ne ajana yu bari ñoo am te seeni neexaay wuute te fu nekk di jëm mu ngi aju ci li liggéey tey am na it ñeneen ñuy xalaat ne faw nit ki jëkk a jaar ci safara te gannaaw ba mu fayee boru bàkkaaram ba noppi mu taxe am na itam ñeneen ñuy xalaat ne ajana mooy bërëb bi yàlla dencal ñi takku ci seen sart diine di bërëb boo xam ne Euh, li ñu fay def mooy bànneexu lekk naan ak sëy ak jigéen ñi gën a rafet ci dëgg xalaati nit ñi bari nañu lool ci lu jëm ci àjana ak yoon wu fa jëm waaye li nu tax a jóg tey du li nit ñi xalaat ci mbirum àjana wante li ci kàddug yàlla wax bérébu àjana am na tur yu bare ci mbind yonent yi ci misaal dañu koy tudde asamaan ngangunam yàlla mi jataayu yàlla bi këru aji sax ji dëkkuwaayu yàlla bu sel bi bërëb bu kawete sel dëkk bu sell bi dëkku yàlla ji dund mu yerusalem ga ca asamaan këru malaaka yu sell yi ak mbote mi jataayu borom bi yeesu ak ndamam lu rëy këru gaay yàlla yu sell yi ñu bind seen tur ca asamaan te ci liñ linjiil gisoon nañu ni almasi bi yeesu tudde bërëb boobu sama këru baay ndaxte foofa la nekkoon laata muy judd ci kaw suuf ci tënk nag ajana mooy dëkkuwaayu yàlla ni nu ko gise woon yàlla mu ngi fépp teewul am na benn bërëb bu sell te leer te rafet fa gën a sore bidéew yi fu yàlla dëkk ci ndamam bërëb boobu mooy fa doomu aji kawe ji di yéesu toog ca ndamam ca ndeyjooru aji màgg ji di xaar ba kero muy dellusi ci àddina si ngir àtte ko yeesalaat ko te it ajana mooy fa ay alfuni alfuni junni junni malaaka wër ngangu ma ñoom ak gaay yàlla yi di mbooloo mu rëy mi yàlla jot ngir boppam jaare ko ci deretu mbotem yàlla mi di borom bi yéesu kirist ci mujjug linjiil di téere peeñu bi ci ñaari saar yu mujj yi yàlla joxoon na yowaana ndawam peeñu ngir won ko dëkk bu sell bi borom bi defar di àjjana ngir ñi ñu bind seen tur ci téereb dund bu dul jeex bi déglu leen li mbind mi wax ci mbirum dëkkub ajana boobu noonu xelum yàlla soluma malaaka ma yóbbu ma ci kaw tund wu rëy rëy noonu mu won ma dëkk bu sell bi ànd ak ndamu yàlla leeraayam mel ni leeraayu per bu jafe lool ni jamaa buy rey rey miir bu rëy te kawe moo wër dëkk ba te am fukki bunt ak ñaar te bu ca nekk malaaka taxaw ca wet ga dëkk ba dafa kaare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 amin noonu la yàlla wone euh, yowaana dëkk bu sell bi mu dencal ñi aw ci yoonu mucc gi mu tëral ci jot gi nu dese tey nag bëgg nañu xalaat tuuti ci li kàddug yàlla wax ci mbirum yoonu mucc googu naka lanu mën a wóore ne dinanu dem àjjana te du dunu tàbbi safara ndax mën ngeen a fàttaliku li almasi bi yeesu waxoon ay taalibeem ci mbirum kërug yàlla baayam ak yoon wa fa jëm mu ne woon leen bu leen jàq gëm leen yàlla te gëm ma am na néeg yu bare ca sama kër baay bu du woon noonu ma wax leen ko ndaxte maa ngi dem defaral leen fa ngeen di dëkk te su ma leen defarale béréb booba ba noppi dinaa dellusi si leen ba fu ma nekk ngeen nekk fa yéen itam te fa ma jëm xam ngeen yoon wi man maay yoon wi dëgg gi ak dund gi kenn du ñëw ci yàlla baay bi te jaarul ci man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 kenn du ñëw ci yàlla te jaarul ci moom yeesu kirist ndax gëm nga loolu ndax gis nga ni almasi bi yéesu moom ci boppam nekke yoon wiy tàbbal bàkkaarkat yi ci jataayu yàlla xëy na mën nanu ko misaal ak benn nettali dafa amoon nit ku dëkk ci benn dëkk bu ndaw fu sore ca biir àll ba moom nag mu ngi bokk ci xeet yooyu nga xam ne duñu sol ay yére lu mel ni geño rekk lañuy takk ci seeni ndigg nit kooku nag dafa amoon suuf su muy baye waaye nit ku ko ëpp doole ñëw nangu suufam ba amatul sax fu mu bayee te kenn dimbalewu ko ngir mu jotaat suufam ndax li mu ñàkk benn bés mu xalaat ne dafa war a dem ca péeyub réew ma gis président bi ñaan ko mu dimbale ko ndaxte déggoon na ne boroom réew mi daal ku jub te am ne mu dal di jóg di dox di dox di dox ba àgg ca dëkk bu rëy ba ak ca këru kilifak réew ma kër ga nag aka rafet te rëy ba mu agsee ca buntu miiru kër ga bëgg a dugg ak tilimaayam ak yaramu neenam ab wattukat ne ko sama waay foo jëm ni mu tontu ko ne kilifak réew mi laa bëgg gis wattukat ba ne ko moo danga foog ne fii ku mu neex rek ñëw dugg te yow sax xam nga ne mënoo fi dugg ak sa yaramu neen ak sa taqaay ay ca ca gannaaw waay bala ma lay kaaf ci kaso bi waa ju ñàkk ji daldi wëlbatiku dem waaye xàddiwul mu dem kon di yalwaan subaak ngoon ba am xaalis bu doy mu daldi jënd ay yére yu ñàkk solo sangu ba set solu wutiwaat kër kilifak réew mi bimu mu agsiwaatee ci bunt ba wattukat ba ne ko sol nga yére yu rafet wante yére yi jaguñu ngir mën a teew ci kanamu boroom réew mi te sax bu sa yére yi jagoon itam doo mën a dugg faw nga am sañ-sañu dugg ci biir kër kilifak réew mi yow amuloo benn sañ-sañu dugg fii ay ca ba mu ko defee nag waa ji daldi xaddi ne cëy maa ko waaru coono gi ma daj yépp te taxul sax ma mën a teew ci jataayu boroom réew mi yaakaaram daldi jeex tàkk mu dem toog ci wetu yoon wi jaaxle lool wante bi loolu di xew boroom réew mi séen ko moom ak taawam ba nekk ca wetam mu ne doom ja demal seet waa jële ba xam lu muy wut ba doomu président ba agsee fekk ko mu ne tocc mu ne ko góor gi ndax mën naa la dimbale ci lenn lu doon say tànk ak lu la tax a jaaxle nii góor gi ne ko man daal dama bëgg a gis boroom réew mi mu tëma ticc def naa lu nekk nag waaye dara xale lu góor ba ne ko man may doomu boroom réew mi te sama baay moo ma yónni ngir ma wàllu si la mu ànd ak moom ba ca kër président bi ba ñu agsee ca wattukat bale ba ko daan tere mu dugg wattukat bi dafa leen tóojal ak wegel gu mat sëkk ñu dugg ca biir kër boroom réew ma noonu la góor gi gisee boroom réew mi te jot ndimbal li mu soxla woon ci ndimbalu doomu boroom réew mi ak sañ-sañam mbokk yi noonu la deme itam ci lu jëm ci ñuy bëgg dugg ajana di jataayu yàlla bu sell ba du ku mu neex rek nga dem ca ni mu la neexe say jëfi bopp du tax nga dugg ci jataayu buur buur yi ni nu ko gise ci nettali bi ñun ñépp dañu mel ni waaju ñàkk ja bëggoon a teew ca jataayu président bi ak tilimaayam ak yarmu nenam looloo tax mbind mi ne ni ko am sobe lanu mel nun ñépp te sunuy jëf yu jub yépp a xasaw ni sagar yu tilim àjjana bërëb bu sell la te dara du fa dugg lu am sobe mbaa kenn kuy soobu ci ñaawteef walay fen kenn mënula tàbbal ci bërëb bu sell boobu ku dul ki fa jóge te kooku mooy yeesu kirist di doomu aji kawe ji jóge asamaan deeni sarax suy dindi bàkkaar dekki dellu asamaan kan moo mën a dugg ajana nag ñi ñu sellal ci kaw ngëm ci ramukat bi yéesu ak deret ji mu tuur rekk ñoo ca mën a dugg ñoom rekk ñooy dugg ajana moom la mbind mi wax bi mu naan ñépp a yam fa kanam yàlla ñépp a bàkkaar ba joteetuñu ndamu yàlla waaye gannaaw kirist yeesu dee ngir jot leen yàlla ciw yiwam mën na leen a àtte ñu jub ci dara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 yàlla jox nanu dund gudul jeex te dund googoo ngi ci doomam ku am doom ji am nga dund gi ku amul doomu yàlla amuloo dund gi maa ngi leen di bind yëf yi yéen ñi gëm ci turu doomu yàlla ji ngir ngeen xam ne am ngeen dund gudul jeex yow miy déglu tey ndax xam nga ne am nga dund gudul jeex ndax wóor na la ne dinga tàbbi àjjana bég ci jataayu yàlla aji sell ji ba faw ndax bind nañu sa tur ci téereb dundub mbote mi ndax nangu nga yiwu yàlla wi ramukat bi jóge ci jataayu yàlla indi xalaat leen bu baax ci li ñu jàng tey ndaxte yàlla bëgg na leen leeral ci lépp su fekkee ni am ngeen lu ngeen bëgg laaj ci li ñu jàng tey na ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li mbind mi wax bi mu naan lu bët gisul nopp déggu ko te xel xalaatu ko loolu la yàlla dencal ñi ko bëgg